baax moom boole woon ak sëñ Abibum sëñ Fallou mi nan nañ ñëw fii ci sëñ Cheikh Jëmb dafa am liggéey boo xam ne sëriñ Abib mi ak bokki taalib yi mu àndalub liggéey te mbooloo ma tudd tuubaa ci kanam xam ne dañoo fa yéene lépp luy jëmale Touba kanam rek ñu ne ca lu ñu amit ca loolu lañ koy delloo moom ay liggéey yoo xam ne tàmbale woon nañ ko ci Touba def nañ ci yu bari lu mel ne am na ay fajukaay yu ñuy tabax ak yeneen yeneen ak yeneen ak ay ndimbal yu ñuy def ci dëkk ba te lépp itam dañ ko delloo ci lu jëm lu jëmale Touba ca kanam jamono yi nag ñu toppatoon ay oto yoo xam ne day tonni mbalit sëñ Mountakha nag wax ne tax dafa jëlale taxawaay bi nga xam ne kër Cheikh am na kër Cheikh am na ko ci setal Touba gi def ci mbal yi ni ñuy def ñuy bëgg a màggal Touba bu ñu màggalee ba noppi waaye sëñ Muntaxa moom fa mu gis daa gën a sori foofa ne daa gis ne liggéey bi sëriñ Touba bu nekk Cheikh Ibra am na ca cëru boppam boo xam ne dañ ko caa war a jox ndax Cheikh Ibra njëkk wane ni ñuy liggéey la sëriñ Touba mu ne liggéey bii sëriñ abi bu jiite tam ñu andi ko moom sëñ Muntaxa gisee na ca gisiin woo xam ne ndax rëy na fi moom rëyin woo ne rafet rafetin woo ne nee mënul lul teg ko ci loxoy seex yi. loolu rek la ñoo mbooloo rek jëbal ko la ko mbàkke suñu xoolee sedd sax boo taaloo orme kos gi suñu xol sedd guy ni ñaan li tax ñu def ko na am na na na na njëriñ li ñi liñ ci bëgg ci liggéey sëñ Touba ak yéen a jën ci am ak na nañ bëgg mu oto yi liggéeyee ni loolu rek laa koy dénk na amee noonu waaw li ci kanam daal ci wàllu liggéey bi maa koy dénk ne ko moom ñii ko def buñ ci buñ ci xewet dara nañ ko nañ ko nañ ko jëfee nañ ko bëgg waaw waaw na nga wax na nga leen waxaat loolu li ma leen wax mais loolu nag laa leen ciy dénk rek waaw li tax ñu def ko daal nañ nañ ko gis nañ ci teg seen bët ànd ko ñoom loolu moo tax taxoon mu ne sëñ Abibou kon liggéey bi dama bëgg ñu yóbbu ko jël ko sëñ Seex jëmb mi nga xam ne moo fi nekkal Seex Ibra ndax jëfi sëñ Tuubaa ji toll lañ ko war a jox oto yooyu nag muy juróomi oto yi camion yoo xam ne ñu rañ mbalit te oto oto yi seen carte grise ngi nii sëriñ Abibu dina leen miite dafa leen assurance su at def li ci war lépp ba xëy liggéey rek dese leen li nga xam ne dégg na sëñ bi diggoo ko lépp ci bu Tuubaa setee loolu am mel na ne kuy sabab lu Tuubaa set ak kay tax mu set mel na ne sëñ bi fàggul na leen lu rëy rëy loo xam ne tey ak ëllëg te loolu nag kon loolu la ci sëñ Mountakha gis ba delloo si waat liggéey bi ci kër Saayib la sëriñ Abibou mit mi ngi nii moo ko jiite moom ñi mu àndal ñëpp ñoo jiite mbooloo moom it Touba ci kanam jéego boobu daal ñoo ko dox sëñ taxaa di ko seere loo Seex Ibra moo tax mën nañ ko ni sëñ Seex moo tax ñu delloo ko ci yéen loolu ma sëñ Mountakha wax ne naa ko wax mais daal nañ fexe bu dëkk ba taqati nas gaag saytu gaag la ñu des lépp nag mu ngi noonu ngeen seet nuñ koy def. ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Habibullahi Mbacke mi ñu àndal ak turu Serigne Abdoulahat Abibu mi nga xam ne mooy jëwrinam ak Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy seen jëwrin euh, daanaka wax ji nag euh, li ñu li ñu li ci amoon solo lépp Serigne Cheikh Abdoulatif wax na ko. te mooy kàddu yi nga xam ne bàyyikoo na ci sëñ Muntaxa kàddu yi ñuy yëkkati kàddu yi cant rek lay doon xam ne ñu ngi koy tàmbalee sant sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo nu sàkk te boole nag Serigne Touba di sant itam sëriñ Touba bu wér a wér ci tawféexi liggéeyal ko jii nga xam ne defal nañu ko waaye nag amaat geneen cant goo xam ne ñu ngi ko koy sant moom sëriñ Touba ci jataay bii ñu am ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. te lu nu fi indi moo di jébbale ab liggéey liggéey boo xam ne mbooloo mi ñuy wax Touba ci kanam nooru dare ni ñoo ko dajale seenu ñax muy lenn ci seeni jëf ni ko sëriñ Cheikh waxe juróomi camion la yoo xam ne mbooloo mee ko daje dajale bi ñu koy utit dañoo xam fi yittey dëkk bi toll ci war a set ndax yaatu na bari na aw nit dugg génn bi bari na te foo jaar gis mbalit mu bari lool xañ na nag Touba ci kanam la mu yéene lépp ci luy setal dëkk bi taxut mu mën koo def waaye mu tàmbalee ci yéeneem bi ñu utee camion yi saytu ko ba muy camion xam ne mën naa nekk ci dëkk bi di fi liggéey ci waxtu wu nekk waxtu nawet ak waxtu wu noor ñu indi ko miite ko peinture ko def ci liñ ci war a def lépp ba camion bu ci ne plein la la taxawee ci gasoil ñu daggal ko assurance bu fukki weer ak ñaar ci lañ am nag bëgg-bëggub sëñ Touba mi ñu ko doon liggéeyal ñu dem teg ko ci loxoom bi ñu xëyee tey dem ci Cheikh Mahmoudou Mountakha ba jox ko ko bi ma ko xoolee ànd na ci mbégte lool sant ci lool ñaan ci lool kàddu yem ci njëkk teg mooy liggéey bu rëyee nii bu rafete nii bu yaakaaroo ni ñu liggéeyal ko Serigne Touba teg ko ci loxol Cheikh Rafaal rek moo ci war loolu nag bi mu ko waxee ba noppi dafa woo Serigne Cheikh Abdou mii ci teewaayu Serigne Abibou mii ak sëriñ Abdou Lahad Abibou woo Cheikh Basum Cheikh Abdoul Khadir ne dafa bëggoon ñu indil ko sëriñ Cheikh jëmm mi nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ñëwee ñu teg ko ci loxoom. ni ko sëriñ Cheikh Abdou Latif waxee léegi rek xam nañ ne oto yi du oto yu ñuy war di dama ko dikk oto yi liggéey la li muy liggéey mooy setal kon li mu santaane mooy ñu teg ko ci seen loxo te li mu bëggit mooy dëkk bi lépp set euh, loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ àndoon ak sëñ Abdou Latif mii doon doon ko jébbal si Cheikh Rafal euh, di santaat yàlla nag bu baax a baax a baax a baax ci tawféexi jëf ji di wane nag ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ko liggéey muy tubaa ci kanam lii mooy lii leen ci sëriñ bi mujj sant mooy ñu ñëw tegal ko ci loxo Seera Fall buñ ci buñ ko indee nag noppi nañ ci lépp mu ngi seen loxo seqoo leen ko kenn àndoo leen cee kenn bokkoo leen cee kenn sëriñ bi jox na leen jumtuwaay te sant na leen dëkkub Touba bi yëpp na set loolu rek lañ ñëwoon di ko di ko seede di santaat yàlla bu baax di santaan mbo mbooloom tubaa ci kanam lool. tey ñaan yàlla lii nu tàmbalee nu fekkaat leen ci ak yeneen oto yu gën a bari yoo xam ne li war ci dëkk bi yëpp dana ko man kon daal ñu ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Touba ca kanam moom. Touba ca kanam moom. waxinu wolof la. waxinu wolof la. waaye ba Touba jëm ci kanam. waaye ba Touba di jëm ci kanam. wala ka jëmale Touba ci kanam. wala sax ka jëmale Touba ca kanam. matuñu dara ca dàll wa mu sol. nee na matuñu dara ca dàll wa mu sol. ku bëgg Touba jëm kanam ku nekk. ku bëgg Touba jëm kanam ku ne. yaay jëm kanam yaay jëm kanam waaye Touba jëmoon na moom jëmoon na kanam ba nopp joomi murit nag jooyi murit nag jom jomi murit nag du lépp sax du lépp sax waaye bokk na ci waaye bokk na ci ànd ci Touba jëm ci kanam ànd ci Touba jëm ci kanam loolu bu doon natt joomi murit loola daal buñ doon natt jomi murit jom mooy jomb jom nag mooy jomb ku ca néewle ku ca le lu bon bon baax la nga lëf. lu bon bon baax la nga lëf. waaye ku ku ci amul dara nag. waaye nag ku ci amul dara. mooy ku amul jomb rek. mooy ku amul ak jomb rek. loolu bokk na ci nag. loola bokk na ci nag. dégg Touba ci kanam bii. dégg Touba ci kanam jii. sa lépp nekk sëñ Touba. sa lépp nag nekk sëñ Touba. nga fexe ba bokkoo ci. nga fexe ba bokkoo ci. te ne xamuma gàcce. te wax ne aw ma gàcce. yow da ngaa xamul gàcce. yow kay xanaa da xamul gàcce. waaye xam nga ko. waaye am nga gàcce. kon yéen gàcce wàcc na yéen. kon nee na ñun gàcce wàcc nañu. ko ànd ci Touba ci kanam rek. ku ànd ci Touba ci kanam rek. sunu borom baaxee na la. sunu borom baaxe na la. ba cër boobu yi moom. ba cër boobu yi moom. dalu la dalu la. muy am gàcce. muy am gàcca loolu nag kon. nee na loolu nag kon. Ah, jëwriñ ji toog. jëwriñ ji toog. di Serigne Cheikh Fall. di Serigne seex Fall. ñu di ko wax Serigne Cheikh Ndiaye ñu di ko jox wax Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng. mu toog ak rakam ju tedd ji. mu toog ak rakam ju tedd ji. di Serigne Saliou moom Cheikh Moussa. di sëriñ Salihu moom Serigne Moudou Moustapha. ñu koo xam ci Serigne Salihu Fat Sow. ñu gën koo xam ci sëriñ Salihu Fat Sow. ci kaddu gi jëwriñu Seex Ibra ci kaddu nag jëwriñu Seex Ibra Faal ji. ngi delloo ab siyaareem. nee na mi ngi delloo ab siyaareem. akum nuyoom. akum nuyoom. akuk um cantam. akuk cantam. Sëñ Tuubaa ji. ci jëwriñu Sëñ Tuubaa ji. Seex Moodu Muntaxaa. Seex di ñaan sunu borom. di ñaan sunu borom. ñaan gu mu ñu baax ñëpp. ñaan gu mu ànd ak ñu baax ñëpp. sunu borom dollee guddal aw fanam. sunu borom dollee guddal aw fanam. dollil nu ak wéram. dollil nu ak wéram. àggale yéeneem ci ñu baax ñëpp. àggale yéeneem nag ci ñu baax ñëpp. àggale yéene ñu baax ñëpp ci moom. àggale it yéene ñu baax ñëpp ci moom. ba liggéey bi nga xam ni. ba liggéey bii nga xam ni. rakkam ju tedd jii. rakkam ju tedd jii. dib taalibeem. dib taalibeem. jiite na ko. jiite na ko. jiite na ko. ànd koog ñu baax ñëpp. ànd koog ñu baax ñëpp. di sëñ Habibou mii. di sëriñ bu mii. muy lu yomba wax rek. muy lu yomba wax nag. noo ñaan suñu borom. noo ngi ñaan sunu borom. mu dimbale ñu ci moom. mu dimbale ñu ci moom. ba liggéey bi nga xam ne. ba liggéey bii nga xam ne. simb na ko. simb na ko. semb na ko. semb na ko. ànd koog mboolem koo xam ne sa yaakaar ci sëñ Tuubaa képp koo xam ne sa yaakaar ci sëñ ne. nekk ci Cheikh Ibrahima nekk nag ci Cheikh Ibrahima Fall. sunu borom dimbaleel nu ko. sunu borom dimbaleel nu ko. ba lépp jëm kanam. ba lépp jëm kanam. ba leen ci bëgg ba li ñu ci bëgg nga xam ne rek la nga xam ne loolu aw waxeen rek la mooy Touba jëm ci kanam mooy Touba jëm ci kanam Touba jëm na ci kanam Touba jëm na ci kanam waaye ñu dolli ko ay ndimbal nag waaye nag ñu dolli nu ko ay ndimbal moog nun ñu ko àndal moog nun ñu ko àndal ba liñ ci bëgg ba li ñu ci bëgg te muy bëggu sëriñ bi te muy bëggu sëriñ bi ñu di ko man ñu di ko man faw faw di ko defee nu koy njortu sëriñ bi di ko defee it nu kawe njortul sëriñ bi ak sunu njort ñun ñu koy ñu koy liggéeyal ak sunu njort ñun ñu koy liggéeyal di leen xamal ne di leen xamal ne sëriñ bi de wax na ni sëriñ bi de wax na ne liggéey bii ñu teg ci loxoom liggéey bii ñu teg ci loxoom fas na yéene fas na yéene la ciy bëggu ka ko teg ci loxoom la ciy bëggu ka ko teg ci loxoom di jëwriñu sëñ Tuubaa ji di jëwriñu sëñ Tuubaa ji di sëriñ Moodu Muntaxaa di sëriñ Moodu Muntaxaa fas na yéene saytu ko fas na yéenee saytu ko. téyel ko ko bu wér. téyel ko ko bu wér. defal ko ci li mu bëgg. defal ko ci it li mu bëgg. kaddu gi. kaddu gi. daa bàyyi ko ci jëwriñu ji Rafaal jii. daa bàyyi ko ci jëwriñu Seex Rafaal jii. waaye ñi ko bokkal nag. waaye ñi mu ko bokkal nag. mooy fukki fukki buntu kër yi Seex Rafaal mooy fukki buntu kër yi Seex Rafaal yëpp. dafa ne ci bopp bi. daa ne ci bopp bi. waaye ku ne xam na ni. waaye ku ne xam na ni. tool bi benn rek la tool bi moom benn tool la daa nekk jëwriñ ji daa nekk jëwriñ ji daa nekk jëwriñ ji daa nekk jëwriñ ji waaye moom ñëppay xëyandoo waaye moom ñëpp ñooy xëyandoo ñooy wàccandoo ñooy wàccandoo kon nag li ci sëñ bëgg kon nag li ci sëñ bi bëgg fas na yeneen fas na yéene. ànd ak rakkam yu tedd yi. ànd ñu téyal ko ko. ñu téyal ko ko. ba defalee ko ko nu koy njortam. ba defalee ko ko nag nu kawe njortam. loolu moom ku ne xam na ni loolu moom ku ne xam na ne. la waral jëwriñu sëñ Tuubaa joojee. la waral jëwriñu sëñ Tuubaa joojee. bi liggéey bii. bi nu liggéey bii. am xelam jàppul fenn fudul. am xelam jàppul fenn fudul. teg ko ci loxol jëwriñu teg ko ci loxol jëwriñu Seex Rafal ji. lu mu doy loola. lu mu doy loola. lu mu wóolu la. lu mu wóolu la. lu mu xam la nii. lu mu xam la ne lam ci bëgg lam ci bëgg dana ko ko defal ni mu ko dana ko ko defal na mu ko bëggee kon nag nun waa Touba kon nag nun waa Touba bokk na ci li nga xam ne moom bokk na ci li nga xam ne moom moom rek euh, jaroon na ndaje mi moom rek jaroon na ndaje mi kenn ku ne kenn ku ne na na dimbalee moroomu muritam yi na dimbalee men moroomu muritam yi dimbale sëriñ bi dimbale sëriñ bi fexe ba këru boppam ga mu fexe ba kërug boppam ga mu dëkkee na ko seetal wecc na ko seetal wecc la ko wër la ko wër. na ko seetal wecc. na ko seetal wecc. bu ku ne seetalee sa biir kër. bu kenn ku nekk sotalee sa biir kër. seetal la la wër. seetal la la wër. li tax nuy tudd Touba. li tax nuy tudd Touba. lépp taxaloo na. lépp taxaloo na. kon Touba gépp dana set. kon Touba gépp dana set. waaye nag. waaye nag. buubee ci sa biir kër. buubee ci sa biir kër. génn ko ci mbedd ma génn ko ca mbedd ma yaakaar ne sa kër yi Touba yaakaar na sa kër képp mooy Touba mbedd ma di Ndakaaru mbedd ma di Ndakaaru da ngaa xamante rek waaye du sax bon da ngaa xamante rek waaye du sax bon léppay Touba rek léppay Touba na kenn ku ne na kenn ku ne setal biir këram setal biir këram setal mbedd ya ko wër setal mbedd ya ko wër la ca nag la ca nag su murid jógee su murid jógee ñoom ñi xam ne setal dëkk bi rek leen ñi nga xam ne setal dëkk bi re leen ñor def ko dana leen jàppandi def ko dana leen jàppandi noonu murid yi noonu murid yi këru texe gi ñu suñu Touba këru texe gii ñu sëñ Touba wutal. di Touba. di sellal gi ci saayir. sellal gi ci saayir. nun la war. nun la war. nan fas jomam nag. nan fas jomam nag. nan bay nan bay suñ kër yi. nan bay suñ biir kër yi. nan bay suñ mbeddi kër yi. nan bay suñ mbeddi kër yi. loolu kat. loolu kat. jom la ci nun murid yi. jom la ci nun murid yi. kon gannaaw cantuk sëriñ bi. kon nag gannaaw cantuk sëriñ bi. ak ngërëmam. ak i ngërëmam. yi mu jëmee ci jëwriñ ji yónni. yi mu jëmee ci jëwriñ ji nu yónni. ak jëwriñam ji nga xam ni. ak jëwriñam ji nga xam ne. moo ànd ak mbooloo. moo ànd ak mbooloo. ba tax mu andi lii mu yónnee. ba tax mu andi lii mu yónnee. sëriñ baa ngi ñaan nag. sëriñ baa ngi ñaan nag. lay ak bëggam. lay ak bëggam. sunu borom defal ko sunu borom defal ko ko. loolu rek les ko war a ñaanal. loolu képp les ko war a ñaanal. di ñaanal murid yi nag. di ñaanal murid yi nag. ñaan gi daj lépp. ñaan gi daj lépp. mooy li sëriñ bëgg ci ñoom. mooy li sëriñ bi bëgg ci noonu. yàlla am yàlla am. bu loolu amee. bu loolu amee. dara des fi. dara desu ci kaddu yi warunu kaddu yi warunu waaye ndigal war nanu waaye ndigal war nanu te ndigal lañ joxe nag te ndigal lañ joxe nag waaye digle wunu waaye digle wunu jërëjëf Fall jërëjëf Fall